مرحبا hallelujah, hallelujah. joxaat ndigal ci sëriñ bi nga xam ne moo joxe woon ndigal lu nañ ko dajaleel turandooy maam Cheikh Ibrahima Fall yi ak ay soppeem loolu nag waxoon naa ci ni dal na xel ñi fi jaar bari na lool ci maam Cheikh Ibrahima Fall ci toogoom gii waaye ci sëñ Cheikh Jëmb Fall nag ci la ndigal lii amee te moom muy maam Cheikh Ibrahima Fall kon dal na xel ku ci bokk te doon nat na bi nga ñëw jàkkaarloog jëmm ji dara doxul digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall naan ak moom di liggéey liggéey bi ci gannaaw Maxtaar Njaay mi nga xam ne moom la joxoon ndigal li fii kon sunu xel dalaat na bu baax noo ngi tallalaat loo ko sëriñ bi di yeesalaat sunu njëbbal di indiwaat siyaar bi di ñaan nag jox ko ko ay ati at tam ànd ak tay tey ji nag ñu ngi indi un million deux cent mille mu mel ni la ñu waxoon rek nu ngi nam na bi di sàkku sëriñ bi mu ñaanal nu ba lu fi waay di indi nu indi fi lu ko ndax am nañ yére ji te it xam nañ ni moom ku koy liggéeyal liggéeyam bii amul tànk ginnaaw tank kanam rek la kon Fall noo ngi ñaan nga yàgg fi te wér liggéey baa noonu. seriñ bii noo ngi lay xamal ni promobile Alaaji Mbàkke yi fay jàmbaar ji nga xam ne mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ca Masalik ah fan yii daf noo jox oto bi nga xamante ne bii ci lay liggéeyee ngir nu man cee mobiliser mbooloo mi nga xam ne ñoom nga nu booleel ngir liggéey bii ñoom noo ànd waa promobile jëwriñ mooy kan. Abdou Abdou Niang moo nekk fii ci Touba ak mbooloo yi mu àndal yëpp nag góor ñi jigéen ñi ñoom nañu alaaji Mbàkke yu booleel kon nuy sàkkul ñaan fii ci kanam sëriñ bi alaaji Mbàkke yu mi nga xam ne moo na accompagné ci lii nga xam ne moom lañ doon liggéeyal sëriñ bi ba di ko yot wasalaamaaleykum wa rahmatulah soxna na fi siis danoo àndaan ak moom di liggéeyal sëriñ bi tam wàcc liggéey nuy jotal sëñ bi ni moom lan tuddee ziar bi nu tënk baax na kon sëñ bi noo ngi lay déglu Fall. Baye may sa jaajëf góor yàlla jaa ngeen jëfati lii ngeen ñëw andil sëriñ bi de sëriñ bi ci boppam moo leen ci joxoon ndigal ni fu turandoo maam Cheikh Ibrahima Fall nekk na fexew bokk ci daayira wi waaye xam nga ni tey jii carnet bii sëriñ bii moom moo ne ci bopp bi ndax maam sunu Ibrahima lañ ko tuddee mu wëlbatiku nag di Cheikh Ibrahima Fall saa yiran wa baatinan kon bëgg leen a dimbali moo tax mu leen di liggéeyloo ndax liggéey mënta ñàkk. te sëñ Cheikh Fall dafa wax ne yoon daal buñ ko day wax kuy dox tax ku doxul bokk ci sëñ Maxtaar boole jaboon na ngeen doole sant bu baax gën a feddliwaat seen i laxasaay bu baax ndax xam nga ne am na ci tout tànk yoo xam ne ñii sax feregunu nàmp ngeen dimbali leen ba seen ñàkk ñëw ci sëriñ bi ñii seen maam sax amu ko waaye sëñ bi rek moo leen bëgg a dimbali ndax moom toogaayam gii képp ku safoo sëriñ bi rek bëgg naa faj sa ajo ci sayir bëgg naa faj sa aajo ci baatin sëñ Maxtaar jaajëf sa taxawaay rafet na lool ndax ku santul nit doo sant yàlla bi nga ñëwee laaj ci ndigal ci sëriñ bi ba tey mbooleem liggéey sëriñ bi bi fi jaar ànd nga ko dongo yi ngeen ne ci bali sëñ bi bëgg ñu def ko ku lim dangay juum kon liggéey yi fi jaar yëpp sëñ Maxtaar yaa ngi ceeg dongo bi dongo yi ak murid yëpp muy turandoo daayira turandoo maam Cheikh Ibra yi kon nag sëriñ bi wax na na ngeen gën a feddliwaat seen laxasaay gën a góorgóorlu bu baax xaw ma bi ban jëf de jëf gii moom teg ngeen ko ci loxoy Cheikh Ibra kon nag feddaliwaat seen laxasaay gën a góorgóorlu sa sëñ Fall daana wax ne am dencal ma kenn du ci rey te sëriñ bii de képp ku jamononteeg moom ba mu sant lëb liggéey luy des ci yow lay desee waaye boo góor góorloo mu waaxu dajeeg yow boo dawee mu ni cirib sa kanam jàpp say mbagg yóbbu la ci kanamu sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall rafet leen jort dalal leen seeni xel ku teew ak koo xamee ne yàlla dogul di teewut te nu yóbbante seenub liggéey yéen ñëpp de na ngeen rafet njort xam ne fekk ngeen sëñ bi ci buntu woo xam ni buntu wu ko ñor la muy ndogu sëñ Tuubaa yii borom ndogu yi de nee na képp ku ma jox lu tollook tànk ma defal la ci defar gu dootu yàqu boo faatoo ma tàbbal lajjana kon boo leen ko dàkkee ñëw fi te ngeen xam ni borom ndogu yi nga xamee ne mooy maam sunu Ibrahima yeggoon na ci bu ñu taal ndogu yi mu xool fu saxaar si ëppee mu ñëw taxaw fa ne éé ah doom ndogu yi may toggal sëñ Bamba ku bu woon ba mënatoo am dara mbaa nga tawat ba kenn xamul lu la dal bu la ndog bu la bu la saxaaru ndog yu duggee da wér boo ñàkkoon da am kon fexe ngeen ba seenum ñàq sëriñ bi dana ko tàbbal ci biir liggéey bi jaa jëf jaa jëfati sëñ Maxtaar fedd waat seen laxasaay gën ngeen la góorgóorlu seetaan ñeetaan ku def dara am dara ku deful dara doom dara sëriñ bii de daal liggéey ba toog fi mu toog yéen nag ubbil na leen buntu boo leen doxee mu faj seen aajo yéen ci nag waaxu su leen kay la wax ndax kenn negul kenn te waxtu wi xaarul kenn nag sëñ Maxtaar gën leen góorgóorlu sëñ bi dimbali leen ba nopp mu dañoo bëgg mu dolli leen a dimbali bu baax jaa jëf jaa ngeen jëfati sëñ bi sant na ci jëfi démb ak barki démb yi ak jëfi tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf sëñ maxtaar sa taxawaay rafet na lool bàyyi may sa jaa ngeen jëf góor yàlla yi jaa ngeen jëf léegi bu ñu génnee ñooy soxna yi ñu ñëw. tàllal leen seen loxo sëriñ bi leen. na tàllal ma ne ngeen fexe ba ñii nga xamee ni ñaanal nañ leen. ñëpp génn na ci biti. yéen ngeen leen rek ci liggéey bi lañ bokk ci liggéey bi lañ bokk. amiin mooy nangum ñaan. amiin amiin barke maam sunu Ibrahima amiin sëñ Cheikh Fall Diop. ilaha illallah la ilaha ba jaa ngeen jëf sëriñ bi moom leen di beral aw cant moom leen di beral aw ngërëm yéen soxna yi waaye soññe yi dana wuute nag sëriñ bi lim leen di sant mooy na ngeen gën a góorgóorlu gën a fàttaliwaat seen i laxasaay gannaaw bi ngeen kenn ku ci nekk am nga turandoo am nga doom joo xam ne mu tudd maam Cheikh Ibra Fall ak moom ñëw mbaa nga ñëwal ko sëriñ bi xolam sedd na ci loolu waaye boo leen delloo na ngeen fàttaliwaat seen i xam ni ab soxna dencukaay la waaye ku liggéeyul doom dara na ngeen gën a góorgóorlu gën a feddliwaat seeni laxasaay gën a jaami seeni borom kër ngir seen doom yi barkeel dana yombal sëriñ bi lool ab liggéeyam ci dongo yi kon na ngeen bàyyi xel loolu leneen la ca toppaat nag sëñ baa ngi leen di jaajëfal bu baax ci Pastef bi ak jàpp gi ak li leen liggéey bi jaral na ngeen rafet njort na ngeen dalal seen xel liggéeyal sëñ bi boo ko boolee jaamu sa borom kër sa borom daan la defal tawféex daan la defal xéwal ndax lu tëb ba kenn mënu ci dara sëriñ bi rek moo ci man dara te sëñ bi gis na leen fedd li waat leen seen laxasaay góorgóorlu leen bu baax ngeen gën a jàpp seen liggéey yegsi na boo leen delloo ngeen gën a jàpp daayira bi gën a fedd li waat seen laxasaay seetaan ñeetaan ku def dara am dara ku defu dara doo dara de ku bokk ci liggéey bi te sa demu ci da seetaan rek sëñ bi fi mu toog ay jëf dong lay seede jaa ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah. na xam ni mooy jawri ni daayira bii waral wax ji ci buntu kër sëriñ bi tey waaye di siyaar bu baax tamit di nuyu coordonnateur mbooloo mi di sëriñ Maxtaar Ndiaye Baye Fall di ci teg. sëriñ maam Cheikh Siñaan nga xam ni ci wàllu diine ci mbooloo mi lu ci bari jotaay yuñ ci tooge mooy jàllale loola di ci toftal mbooleem ñi nga xam ni nag ñoo bokk ci mbooloo mi te xam nañ ni ñoo bokk ci mbooloo mi di ay góor di ay jigéen waaye di ay mag waaye di ay ndaw ndax ku ne xam na ni mbooloo mu toll nii kenn mënu koo lim ñoom ñëpp waaye àla kulli xaal tudd ñenn ca mbooloo ma ñu yóbbaale ña ca des kon loolu moo sabab ñu tudd góor ñi eh, ñu yóbbaale jigéen ñi waaye ñu tudd mag ñi ñu yóbbaale ndaw ñi kon loolu mooy sabab yi waxtaan wi leneen li nga xam ni noo ngi koy jàllale ci turu jëwriñ mooy li nu jële ci sëriñ bi te mooy mbégte moo xam ni moom lan doon wuti ci sëriñ bi te sëriñ bi wane ko ci mbooloo mi nga xam ni ñoo ànd ak sëriñ Maxtaar Ndiaye Baye Fall di jëf tey jii ba yegsi ci sëñ bi te mu mel ni bii nu seen njaal beenu ñëw ci sëriñ bi mu mel ni bii mooy ñetteelu yoon ñuy ñëw ci sëriñ bi waaye saa yu yegsee ci sëriñ bi ak mbooloo mi sëriñ bi wax na leen jaageen jëf jaajëf yi sëriñ bi nag sëriñ mu doomin ko faal yal na yàlla dolli leeram di magi jëmm ji toog daf daan wax ni waaw góor daal xaw a dee ko dee wet sa koy maye kon mu mel ni ku jëf nag ba dégg jaajëf war ngaa jaajuwaat jaajëf su ne jaajuwaat lay tekki kon li nga xam ni jëlee nañ ko léegi ci ki nga xam ne moo yor kaddu sëriñ bi tan rafet lu ko lool te muy sëriñ Omar Dumbuya mu wax ni jaageen jëfi sëñ bi kat moom la ñëpp yi wër te am ngeen ko kon nag ak soññee la ko mbooloo mi war a def ngir buñ jógee fii tey ñu yëkkatiwaat nag seen pas-pas ak seen yéene ak seen bëgg ngir bu déwénee buñ teewaatee ci kanam sëñ bi mbooloo mi dolli ko jëf ci dolli ko pas-pas bi dolli ko yéene ci dolli ko loolu nag dara mënuñu ko may lu dul nu gën a nekk benn gën a waxtaan gën a diisoo gën a yokk suñuy jéego ci biir réew ak ci biti réew nuy rafetlu nag taxawaayu ñi nga xam ni ñoo teew ñii tey ci kanam mbooloo mi ak taxawaayu ñi nga xam ni ñoo nekk bitim réew te teewuñu ci kanam mbooloo bi waaye seen jëf nag ñëw ci mbooloo mi ndax ñaar mooy nekk ci mbooloo dox ak doxal dox ak doxal nag bokkuñu kii dox daa teew ci fi ñuy doxe kay doxal nag daa teewul taw ñakkam di ñëw muy doxal kon ñaar ñooñu ñoo ŋànk mbooloo mi ba mbooloo mi mën a am lii moom tey nuy rafetlu bu baax initiative bi nga xam ni mbooloo yi nga xam ni ñoo boot ci sëñ Maxtaar Njaay am nañ ko ci cher bi nga xam ni ñi ngi ko barkeele wan soxna Mati Siis di kenn ci mbooloo mi doon kenn ci mbooloo mi di jigéen waaye di jigéen ju man góor may wax ni góor jigéen moo bon waaye jigéen juy góorgóorlu baax na soxna Mati nag jigéen la wan ju doon ci lan la doon góorgóorlu ci toolub maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii kon su mbooloo mi dajee dëjjee ko bis bi ngir barkeelal ko fa mu nekk yàlla dolli ko yërmande ak njëggal tanu taatan ko léegi ci kanam sëriñ bi tam nangul nu ko kon noo ngi xamal koo xam ne yaa bokk ak soxna Mati Siis na sa xel dal ndax li sëriñ bi wax léegi rek moo am sëriñ bi moom mën a jaale mën a jàllee ko gën sëñ bi rek mën ta jaale waaye daa mën a jàllee kon soxna Mati Siis na ci xel gën a dal da xam ne kam doon liggéeyal muy Cheikh Ibrahima Fall léegi rek seedeel na ko ñaanal na ko te nun ñuy ñëpp kenn ku ci nekk ci nun loolu lay wut kon yal nan ko may waxaat bu baax ni mbooloo mi nanu góorgóorluwaat te soññuwaat te jàppaat ndax sëñ bi soo ko yitee benn mu def ko ñaar soo ko yitee mu def ko fukk sëñ bi melokaanu sunu borom la yor an ba tat ni yàllay def gubu dugub noonu la sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal di def jëf mu mel ni nag génn ci sëñ bi mu bëgg ci yow war naa doon ab soññee ci murit ba mu doon ndax kenn ku ne ci nun soo lambee xolam tey fekk nga ca mbégte mu mat sëkk waaye fekk nga ca yaakaar ju dolliku waaye fekk nga ca pas mu dolliku lan moo nu ko may mooy jëmu ji nu génn te muy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xool ko yi mu yor xool ko fi mu toll waaye kat li ñu koy liggéeyloo mooy nit mbooram ak ràññeet li leen ak ñaanal leen dara mun ta dox digganteem ak loola kon nun ñii kenn ku génn ci sëñ bi war ngaa soññaat sa nuy santaat yàlla bu baax nag di bu baax ci mbooloo mi sëñ Maxtaar nu lay dollee jaajëfal ni nga ko jëlee ci sëñ bi ndax ku yokkul yaa wàññi te it nag bu sëñ bi nee jaajëf kenn ku mën doon ci nun war naa wax jaajëf te sëriñ bi nee na jaajëf jaajëfa ci kon may wàcce sama kaddu foofu di jox sëriñ maam Cheikh Siñaan xëy na mu dolli ci ay kaddu jëwriñ la wax waaye bala maa wàcce kaddu nag nanu xam bu baax ni sëriñ Mbacke yu fay nag liggéey bii jàpp na ci waaye loolu nag du nu bett ak lu mel ni Lamp Fall ak lu mel ni Touba Fall yooyu nag suñu ñëwee ak suñ internet yi nga xam ne ñu ngi fi daje ñoom ñëpp lu mel noonu nag su Lamp Fall rajo ñëwee couvrir événement Lamp Fall bu jëm ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall wàcc na muy rajo Touba Fall di rajo suñ Cheikh Fall ndigalit kooku su ñëwee couvrir événement bu jëm ci maam Cheikh Ibrahima Fall rajo boobu wàcc na kon noo ngi sant site internet yi noo ngi sant rajo yi waaye noo ngi mention spéciale Promobile Promobile nag dañ koo promouvoir mu paravar moo tax mu mën a ñëw gunge mbooloom turandooy maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax murit bu ne war nga am carte Promobile ngir lañ ko paravar mu Promobile mu paravar kon na ko ñëpp am kooku nag dama koy lancé solennellement l'appel boo xam ni bépp murit boo def Baye Fall tey boo gisee lii oto bii gaare ci buntu kër sëñ Cheikh Jëmb Fall muy kan muy jàmbaari sëñ Tuubaa ja kooku la sëñ Baara noonu yaa ma doy ci Ndakaaru Cheikh Sidi Maxtaan ni ko yaa ma doy ci Masalik yàlla dogal mu téye Ndakaaru liggéey Masalik defar promobile du prévoir ko mu gunge turandooy maam Cheikh Rahma Bari kon nag ñëpp am na carte promobile wasalaamaaleykum wa rahmatullah li jar a wax sëriñ wax na ko liñ waroon wax sëriñ Maysa wax na xanaa ñu waxal tuuti rek ñu bokk liggéey bi di ay jëwriñ yoo xam ne dañoo yor ay kees yàlla ñuy ay jàmbaar dëkk bi ku ne xam ne ñaari at weesu am na si ñoo xam ne xat nañ xat goo xam ne mënoon noo bàyyi kees yi nekk ci seenu liggéey am na si ñoo xam ne xat nañ xat goo xam ne mënoon noo doxe neneen yàlla def tawféex ci ñoom ñu xam ndigal li ñu jële ci sëriñ bi xam ne du ay caaxaan doonul ne mataar la bu fekkoon ne mataar la duñu doxal kees yi ak liggéey bi waaye dañoo xam ne ñoo àndoon ñëw fii jël si ndigal li ñu xam loolu ba tax ñu tey ji seen fukki ak juróom bu ñuy jiitalee sëñ Gora Seck bi nga xam ne moo njëkk a nekk représentant ci bitim réew di Espagne bi muy ñëw bi mu yónnee na àddeem ay rakkam ak ay soxnaam ñoom ñëpp ñëw nañ euh, sëriñ euh, Ibrahima Diop nekk Dakar Castor ñëw na ak ay àddeem sëñ Mamoor Jànga Serigne Moussa Fall yi ay jëwriñ lañ foofu ñoomit ñëw nañ ak seen àddee soxna làmp mii jëwriñ la moom it yor kees ñëw na ak addiyam soxna nday xadi yaay faal mii moom moo nekk Touba mën naa ne bu jëwriñi kees dee am ginnaaw soxna nday bay bi nga xam ne ku ne xam ne ne bu yorutoon kees toog bu ñëpp dajee mooy seen jëwriñ ñu ngi koy ziare mii ngi nii soxna nday xadi di jàmbaar takk laxasaa yi moom bu amul guddeeg bëccëg comme ni ko soxna yi di defee soxna ami si la moom it ci ci jëwriñ yi la kees yi la euh, xam naa lim bi dinaa fàtte waaye su ma maa ngi jégalu euh, sunu yaay yaayu soxna Mati Siis mii nga xam ne doomam nii la yore woon kees yàlla def mu jiitu ji ñu ñu tudd ko ziar bii di ñaan suñu borom suñu borom gën ñu ko xaral àjjana na moom ma nga àjjana ginnaaw loolu oto bi ngeen di gis sëñ may sa leeral na ko alaaji mag yu fay ñun ku ne woon dinañu dem ba mën a sàkku ci moom dara mënu koy defal loolu duñ ko gëm xam na ne suñu jëm mënu ko waaye sëriñ bi ñu àndal moo raw loolu moo tax bi yàlla dogalee ñu jub ci liggéey bi suñu addee yi matagutoon ñu war a jël ay oto di leen fay xaalis bu bari yàlla def dogal bi moom bi mu xamee na soxla nañu loolu mu boole ñoo capitaine ñaa mi nga xam ne moo nekk fii ci encense bi ak ndaw yi ne lépp loo xam ne Matar Ndiaye ak waa daayira bi maa ngi jéglu sax tudduma lépp lu turandooy maam Serigne Fall yi bëgg na ngeen ci ànd ak ñoom ñoo ngi nii ba keroog nuy pare ñu ngi siyaaraat bu baax a baax Cheikh Mohamed yor kuréel gu mag ci kër sëñ Cheikh Fall Baye moom it bokk ci liggéey bi ñëw pour réew mi ñoom Mbaye Baye Fall sëñ Xaadim ñi ànd ak ñun ñëpp ñu ngi leen di siyaare lim bi bugguma ci woon a dugg ndax boo limee doo ma te leer na ma am na ñoo xam ne maa ngi leen war a tudd te tudd ma leen sëñ ma Samba ñu ngi lay siyaare sëñ Bay Sañaan euh, sëñ Ibrahima Diouf boo demee nuyu ma waa Dakar liggéey bi rafet na sëñ Maysa liggéey bi rafet na waaye euh, Góora ñu ngi lay siyaare liggéey bi rafet na Soxna Ngom son waaw Soxna Ngom liggéey bi rafet na waaw ginnaaw loolu sëñ Maam Cheikh ñu ngi koy sant jëwriñ la ci liggéey bi sëñ may sa da koo sant bu dee su may sëñ may sa ñëwee euh, jaar fii mu ñëw jaaraat fii day doy waan ndax xel day fattu moo tax bu sëñ may si jaaree bi su mu ñëwee jaar fee buñ ko boolee rek lépp mat euh, waa presse bi nag sama mbokki presse bi ñu ngi leen di defal mention très bien comme ni ko waxee parce qu'il faut parler français aujourd'hui parce que kii kontaan dama kontaan maa ngi leen di siyaare di amaan mbégte bu baax a baax waa rajo Lamp Fall xam nga Lamp Fall ci turandoo yi la dagg na lu si 15000 russi 6 000 la ñuy dagg mu ñëw dagg russi 15 000 ba pare ànd ak ñun liggéey bi kon ñu ngi leen di sant baax baax waa rajo Lamp Fall rajo Benno Mortala Fall mën naa ne communiqué yi daanaka laajuma ci lu bari laajuma ci dara sax laa mën a wax ndax li ma joxee daanaka du dara mu may ma boobu léegi communiqué yi defal ma émission waa site internet waaru TV may nañu émission ànd ak ñun ci liggéey bi waa Murid TV waa Murid TV yónnee nañ fi ñoom it Mouride TV ñu ngi leen di ziare ñoom it ci communication yi parce que liggéey bi ak communication ñoo ànd rajo Touba Fall ñu ngi leen di ziare sëñ maam Gunda teewal na leen ñoo ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp jotaay bi dafa yàgg te dafa guddi te am ñoo xam ne daa am fu nu war a dem addiya gi ñu bëggoon a jébbal sëñ bi muy million ñeent fukki junni mat na waaye giñ naa ko ci Cheikh Ibrahima Fall man ku ne moon dina mat ci saayir du ma ko gëm bërki démb damaa dem ba barabu maam Cheikh Ibrahima Fall leen dong la fa ñaan wala ñaar muy mu mu teel ma saabu wala rek teel ma teel dina daanu dina parce que liggéey bi daal nu mu demee gëmuñu woon ne dinañ am 1 million 200 mille. ma dem ba barabu maam Serap Fall ma xamal Cheikh Ibrahima na ko bu dee liggéeyal naa la bu fekkee am naa ci yow dara wala liggéey bi nga nangoon na ko li nu bëgg a jébbal dinañ ko jébbal 1 million 200 mille yi mat bañ siyaaraat beneen siyaaraat beneen siyaaraat ba defaat leneen ak leneen ak leneen. kon ñu ngi santaat yàlla lu baax da xam ne man de gëm naa ne Cheikh Ibra Fall teel nañu suñu liggéey bi te nangu nañu ko ñoo ngi siyaare nag bu baax a baax sëñ Ibrahima Thiam sama xel ci génn maa ngi lay siyaare sëñ Mbaye Thiam waa Daaru Kojo ak ñëpp rek di leen woowaan nag ci kees yi képp ku amoonu kees na nga ñëw nga jëlaat sa kees képp ku bëgg kees na nga ñëw ñu jox la kees bu dul loolu ku bëgg bokk ci daayira bi joxe sa addee nga ñëw ko ndax lii la rek kon ñu ngi tuub di jégalu euh, kàddu yi dafa bari ñi ma àndal ci liggéey bi ci tournée bi ci caravane bi ñoom Serigne Dame ak Baye Fall yëpp sëñ Moustapha maa ngi leen di sëñ Bàcc maa ngi lay ziare sëñ Mohamed su ma limee damay juum su ma limee damay juum maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq yal nañu yàlla boole jéggal ñu leen di jox rendez nag ndigalu sëriñ bi du leen wax déwén de ndigalu bi rendez bi mooy ndigalu sëriñ bi bu sëñ bi joxee ndigal murid yëpp dañ fi yëpp ñoo ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp barke maam Serap Fall kontaan nañu kontaan nanu kontaan nañu lu ñu waroon wax waxuñu ko rek ñu ngi koy jégalu baax a baax soxna wa sant nañ leen baax ci communication bi yéen waa presse bi communication bi jàll na fu ngeen dégg suñu woote rek xamal ne woo nañ leen yéen ono yéen euh, ñoo far on est ensemble ñoo far jërëjën jëf jërëjën jëf jërëjën jëf li ngeen war a wax lépp rek xam nañ soo na ma ma nga àjjana waaw pal mbag laa ak bu ma yegg sama kër mati bam nelawee daaw ba ren wax naa ko mataar biig laa ko gis te ni ma ko gisee biig oto bii moo ñëw ca